affaire euh, ñu bëri dañ mën jàpp seen ngëm bi ñu ko déggee mais bulle bi commencé naa dégonflé wu parce que voilà après yu bëri ñu ci gis xam nañ ne xëy na il a été induit en erreur peut-être c'est pas volontaire mais dafa indi question mooy ressource Sénégal gi mu am yëpp yëpp te sans euh, président wax ne c'était vraiment bien exploité euh, bien bon pas maanaam bien utilisé ku ne dañ ci gis sa bopp mais malheureusement au Sénégal tey gis nañu fi ñu ci toll maître Moussa Diop. <laughs> c'est da doon sonk sonk la xam nga xam nga xam nga non gis nga li may wax nii sa sérieux mhm. boo déggee euh, PAM nu muy waxee man daf may fàttali bu. PAM nu muy waxee daf may fàttali man bu bu njëkk y a des années en arrière ni ma daan waxee PAM ni ngay théoriser maa la dàqoon a wax <laughs> dàqa la théoriser c'est-à-dire ma wax ci lii lu ma xamul benn ñun dañu doon wax Ousmane ne ko pour jëm ci maître Moussa Diop. parce que dañu tolloon benn période demoon na ba jàppante à Bruno Derneville ci lu mel nii. conférence conférence des leaders waroon bëggoon génne ay information Bruno ne ko boo ko génnee suba ma def déclaration en tant que président de la conférence des leaders wax na ñun ànduñu si tey ànduñu si ëllëg tey dafa am si espace politique bi loo xam ne ne. ñu les responsables politiques waaye ñi nga xam ne nee nañ suba dañoo bëgg jiite réew mi man suba aw ma benn ambition jiite réew mi aw ma ambition def benn poste soxlaw ma poste politique ndax yàlla mooy sutural te politique mooy mokk te waa Pastef xamuñ loolu. am nga candidat quoi. ñoom. Amadou Ba mooy candidat man Amadou Ba le président Amadou Ba mooy sama candidat. ñoom ñun dañ ko doon wax ne ko tey communication bi nga doon def ñun dañoo ànd Ousmane Sonko lu yàgg xamuñu woon sax bi bi. mais bés bi ñu demee euh, bi ñu jógee ci deux mille bi ñu defee élection deux mille dix neuf bi ñu toog ci bureau ma ne ko sawaay ni nga daan communiquer léegi na ko bàyyi mun na ma noo loolu communication mun na ma yéen comprendre loo leen mais communication euh, communication de euh, loolu la ñuy wax révélation en communication man na ko révélation boo xoolee Ousmane Sonko waa APR ñoo seen ñu yor seen seen communication seen seen liggéey. war nañ ko gën a defaraat mais ñoom bu doon maay ñoom Ousmane Sonko bi mu commencé politique di wax di def ay révélation comme li maître Moussa def nii. Mm. ba léegi jëlal nga xool bu fekkee ne diis la wax nga xool ci dix yi boo ci gisee benn boo xam ne ni après am na suite nga wax ma ko mais moom à l'époque jigoon na ko loolu moo ko dal ci moom ak Mame Mbaye Niang. Mm-hmm. maanaam daf tàmmoon lu ñu accusé. dafay accusation Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye am. soxna am ay doom Mimran di liggéey amal njariñ réew mi. Mhm. le président Macky Sall nekk jiitu réew mi ba pare am ay njaboot. mais kooku boo demee bay wax loolu sax mais nga teg ko fu leer parce que tey mën nga ñëw ñu jox la permis de recherche parce que permis yi ay phase la. Mhm. recherche bi mën nga recherche ba dee doo am dara. boo amul dara nag da ngay dem. Mhm. parce que dafa am ay phase phase recherche. phase phase réalisation ak phase expo exploitation. ba jeex ay phase la phase. mais phase bi njëkk ba mën nañ la signal dafa la lépp jox la cent hectares nga xool ba déwén doo gis dara. sa xaalis nga ciy def nga ciy def donc pour man il faut que euh, affaire sonk yooyu ñu bàyyi ko gis nga Mamadou Awa ñu bëri dañ defe ne ne eh, man damaa contre Sonko mënuma contre sonk xam nga lu tax mënuma ko contre leer na ne man li ma def ci moom ba mu doon li mu doon tey sonk bu nekkoon société. waxuma ne actionnaire majoritaire laay nekk de waaye li ma leer booy femme ak ñi ko wër ñëpp maa leen gën a nekk actionnaire. non non moo parce que. loolu dañ koy indiwaat mu leer parce que lu tax. mooy que ñoom dañuy jéem a gëmloo sénégalais bi muy wax ñoom ñooy yàlla ñooy yonent bi ñooy sëriñ Touba ñoo sell que ne alors que ne politique kuy schéma politique non waxuma ko pour kii de. <laughs> Modou Aw dama lay wax benn affaire bu gën a simple te sénégalais yi c'est dommage que ne duñ ci bàyyi xel surtout ak journalistes yi. Mhm. mais Sonko ñun waa jot na nu mu ñu nu mu ñu def war mënut a weesu loolu. non Modou Aw dama lay wax ne la man maa doon dem ci àll bi. Ziguinchor avec mes propres moyens li ma lay wax nii laajal waa Pastef ñu yor seen massification yi ak ñoom it ña ngi ko ba jéemee mi nekk président conseil départemental avec mes propres moyens di leen dem jëli ji Dakar seen i kër di taal sama oto di si def essence di bu ñu demee foofu may fay hôtel yi def ñuy def tour di teg ay cellules un peu partout diaspora bi li fa ëpp li ko doon teg man maa ko doon teg bu ñu doon dem meeting bi Sonko doon bàkkoo Pikine Cheikh Aliou Bey ak ah ñoom moo tax ay Guy Marius Sagna la moo parce que dañoo toog en pleine réunion ma ne leen hé yéen fi ngeen jëm nii. ay affaire ay affaire politique visibilité ngeen bëgg la preuve ma l' avenir m'a raison da ngeen di teg ay chemin jéem a gëmloo sénégalais yi loo xam ne ne leer na leen ne yéen amut bu ñu demee ba ci biir ngeen amaat beneen attitude la preuve ñu doon wax France dégage tey ñooy dem trophée di photo ñu doon wax naan système ak anti système mais tey yeewi am na ci leader yoo xam ne ñi ngi ñaar ñoo xam ne ñi ngi ci yeewi Ousmane Sonko moo ma wax. wax ñu ñun nañu ñooñu ah Macky Sall réeroo wuñu ñoo wax ñu lu tax sax Macky Sall téye mais ñun ñu xëy suba Ousmane Sonko génn ci biir coalition jot na te Ousmane ko bi muy génn coalition jot na 22h ba minuit man moom ñi ngi waxtaan téléphone dimanche lundi ñu xëy mu génn coalition jot na ndakate moom. jéem a gëmloo sénégalais naan non ñun dañ doon négocier ak Macky ak Macky Sall si suuf mais ñu ñu ñu ngi doon négocier ak Macky Sall ndakate moom boobu mu ngi négocier ak euh, euh, ak Khalifa Sall depuis xalifa Sall nekk. mais est-ce que l'avenir ne lui a pas donné raison. non dëgg tey jii nii ma ne war gu metti gi mu ñu war war gu méttee méttee méttee métti googu moo tax ñun ñu xam ne ne ndakate politique Sénégal day toll foo xam ne ne da ngay xool nag njariñu réew mi fu mu toll. liñ ñu doon wax naan ñu c'est le président Macky Sall troisième mandat la jëm. bu jëmee troisième mandat dem dix dem dem dem dem deux après deux mille trente cinq après deux mille trente cinq président à vie bëgg a nekk di ñu ko théoriser loo ñun ñu koy théoriser loo xale yeex affaire yooyu ndakate li ñu doon wax yëpp du dëgg gis nga man gëm naa bu ñuy politique ñu ne dañuy politique bu ñuy chemin ñu ne dañuy chemin mais mënoo ne yow mun ñoom mënuñu ne ñoom politique bi ñuy def moo sell politique bu ñu def moo baax alors que ne si chemin la ñuy dugg suba ngoon guddee bëccëg la preuve. tey yaa ngi éloigné wu sujet bi gaaw non parce que dafa c'est très important li may wax parce que moom laa doon xaw a ñabasaale euh, tontu waale ko si tontu nante tey. <laughs> tontu nante tey tey. parti bi ëpp problème si Sénégal tey parti bi ëpp problème si Sénégal mooy ex-Pastef armée moo raw armée mexicaine parce que gars yi may ñu leen jàmm aussi. non déedéet à l'interne laa la wax ay clan la moom mii sax boo demee am na clan <laughs> clan clan ngóor clan Masamba clan yéen ngeen ne dangeen bëgg a changer réew mi. di dugal ci kii seen leader problème bu leader bu dugg ñoom ñoo ko ci dugal ñëw théorie dem ci xale yi di leen théoriser gis nga. merci. affaire fausse publication yi. Mhm. fausse information yi nga nekk un leader. Mambay ñaa yor jabar yor ay doom nga taxaw devant tous les sénégalais ne kii daa sàcc suñuy milliards. Moussa musaa Diop def loolu yoon bi dal Moussa Diop ba ñu téye ko tey ba def ko garde à vue mais même yoon boobu moo dal tey Ousmane ah, Sonko bëggoon a ñëw donc juste pour vous dire que ne boo defee coloration bi tey en résumé fi may jeexale mooy justice Sénégal ku ne amul ku ne amul justice da nga bëgg nax seen da nga bëgg a nax population bi nañu gën a respecté xam na ne tey maître Moussa Diop li ko dal li mu wax ba mu dal ko son ko wax na lu ko raw ba loolu tamit dal ko jërëjëf te ñi nga xam ne ne ils aspirent à diriger demi le pays nañu xam ne ne boo bëggee jiite réew li jiitu ci jiite ci jiite réew waroo mel ni sunu genre yi nga xam ne bëgguñoo jiite dara yow war ngaa mel waa nga war ngay doxee noo xam ne ne waroo comparé woo à man li si jiitu mooy di wax loo xam ne gëm nga ko. Mm-hmm. Euh, femme man je n'ai rien yow xamoo ko xamaane woo ko man diire bi ma def ak moom. fi ma ànd ak moom li ma sëkk ak moom leer na ma ne yow ak ku mel ni yow. jërëjëf seex ko ba tax na ba tax na non non dama koy leeral rek ba tax na ne ko lu tax ñu ñu génn ci moom mooy que ne dañu ko maîtriser yow noo ko maîtriser wul. merci daal Macky Sall Macky Sall je t'assure waxuma ay waxe kii de Ousmane ko tey bu jëloon réew mi 8 heures 17 heures boo moytul moom gars fekk ko. pareegul pour yow matagul euh,